jërë ngeen jëf li Matar Seck mboora ne woon dara gënta métti ci àdduna ànd akub yambartey bañ jikkoom feeñ loolee la Souleymane Jules Diop gis ci Amadou Ba mi Macky Sall la tànn ba tegal rajo Futur Média ba ko laajee lu mu xalaat ci candidat Benno Bokk Yaakaar bi di Amadou Ba ca la leen man moom la àndal à te loolee du tey dafa yàgg waaye Amadou Ba mi ma gis bu dee moom ak moom rek waa Benno Bokk Yaakaar gagné guñu ay élection Souleymane Jules Diop ne Amadou Amadou Ba wanewul dara luy mën a tax askan yu mën a gëm ne mën naa jiitam réew Amadou Ba tooy na Amadou Ba géey na Amadou Ba boole na yàcca gesar dóorul fayul mu ne dafa war a jóg di dem ci nit ñi dafa war a rassurer majorité bi ko jiite ku am ay qualité la waaye li mu nekk bu ci jugul présidentielle 2024 yi bu nee na Amadou Ba mii ñu gis ñoom ñi ci majorité bi tàmbali nañu ci ci moom ndax dana yàcc na yasar dóorul fayul Vox Populi bind mu dët mu mel ne ku jaaxle ci xët mu njëkk réew mi quotidien journal bi bind ne gis na xaat defetu waa Benno Bokk Yaakaar ci présidentielle yi 2024 yi journal lay fo nañu nit ku amorf moom la Souleymane Jules Diop gis ci seen candidat bi di Amadou Ba keneen ku ko gisal leneen ba di ko wax feneen mooy Abdoulaye Bibi Baldé mi ngi ci xët mu njëkk la Sénégal Bibi Baldé nee na Amadou Ba dalul am xel te su moytuwul dana yàq benno gi ci biir Benno Bokk Yaakaar ndax bi ko Macky Sall tànnee ba léegi ne kurru ci suñu biir Souleymane Jules direct news jàpp na ne lu état bi di ruumandaat ak di xumtoo moom la Souleymane Jules Diop biral ca kaw ndax naar bu ndaw lu mu wax ca xayma ba la ko déggee journal bi mi ngi laaj lan la bi di tiit ak di patpati ba tax mu taxaw ci tànki bëgg report élection présidentielle ndax ak moo gënoon a jaxaso 1988 ak 1993 ñëw ne ko dandum 2012 rek dara gën a ko fi woon jaxasoo te terewul bi ñu fi waree organiser ay élection dañu ko def Souleymane Jules Diop ni ñu ci point directeur général bu ANAMO di ñu xamal ci yéenekaay bi ne li ñu war a def mooy toog waxtaan amal ultime dialogue waxante dëgg lu mu naqari naqari lu mu wex wex ñu waxante ko ku ne jàngee ca journal bi mi ngi ñuy wax it ne kii di Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp ak Alaaji Malick Gakou ñoom bëgguñoo dégg waxi reporter élection décidé nañu dem ci élection yi ba jeex tàkk ay élection yu leer nañ ay élection yu ñu dul bot di kenn Vox Populi nee nañu moo lu toll ci fanweeri candidat ak juróom ci présidentielle yi 2024 yi booloo taxawal kuréel gu ñu tuddee Front pour l'inclusivité et la xutti seen tànk tubéy ci présidentielle yi ba lépp jaar ci yoon tur bi nañu fanweeri candidat ak juróom ci présidentielle yi ñoo takku ba dëgër fas yéene taxaw jàmmaarloo ak Macky ak waa këram waa këram yi moom Macky kenn ci ñoom di Abdoulaye Daouda Diallo président conseil économique social environnemental point actu nee nañu ngemb na Mamadou Salif Sow directeur général des ASP dooleel ko ngir mu renforcer Benno Bokk Yaakaar ci diwaanu Ndakaaru xëye ba di ñu yeggee réalisation yi état bu Sénégal def ca dëkk ba le mandat xëy taxaw ci courant ba ca Kédougou bokk na ci ay investissement yu rëy yu waa ASER di agence électrification rurale def ba ci convention bu ñu def ak commune bu Sabodola ànd ak entreprise bi di Sabodola Gold Opération mu jur 47 kilomètres ligne moyenne tension fexeet ba dugal courant bi ci juróom-ñaari localité localité bu Bargny gaalogloo ca ga fa déparé woon doon dem Espagne te ga ca Géejawaay libération mi ngi ñuy wax ne am na ñetti néew yu géej gi goqi keroog ca gaalogloo ca ga ca la ñu ne woon leen fekk ca plage bu jàmmalaay beneen néew bi ci des ñoo ngi ko gis ca plage bu déeni géej nord nekkoon di jamono directeur général poste Abdoulaye Bibi Baldé wax na jëmee ci candidat bu Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba dalul xelam rassuré wul mu ne ak xaajatle gi mu gis ci parti bi ba mu ñëweeg léegi ne euh, candidat 2024 euh, loolu mooy gis-gisu euh, Bibi Baldé xibaar yi bokk na ci it lu jëm ci wàllu Sénat beeg membre yu bees nuy installé teg tey ci seen i toogu bu boobee commission électorale nationale autonome njit la ñu fàttali ni léegi kii di Abdoulaye Sylla la dal di fa wuutu magistrat Doudou Ndir jamono yu ca constitutionnel it euh, dinañu am gan magistrat Cheikh Tidiane Koulibaly te moom euh, nekk léegi membre ca googee kuréel euh, dinañ ko fa daal di teg ci toogu bi tey. Dakar Ziguinchor ci wàllu géej gi ak taxawu bato bi ak léegi ab diir président au conseil dialogue social àdduna ca bu sañoon daal ñu pencoo ko waxtaanee ngir yëf yi teguwaat fa woon. tukki mi ci anam yi dëppoo ak yoon it naka noonu fexe ba gune yi wan ginnaaw musima mu ni mel. ci mb nga xamee ni combat bi fës doxoon ci diggante Tafatine ak Eumeu Sène moom Tafatine mooy daal di daan fële ca arène nationale ki nga xamee ni moom moo di Eumeu Sène ci noonu mu am fukk juróom benneelu ndamam ci li nga xamee ni moom moo di làmb ji amateur yi nag amoon combat bu am solo combat wu gladiateur comme ni ñu koy wooyee ci diggante ñaari mbër yooyee dellu ci direct bi ànd ceeg Malal Junior Diagne. dafa door na ko. Eumeu Sène door na. Eumeu Sène a ngi door door na. Eumeu Sène door na. Eumeu Sène a ngi door. dooraat na. Tafatine kor Eumeu Sène Eumeu Sène war na ko Tapha Tine kawo na bàyyi na ko kawo na jàppante bàyyante nañ Eumeu Sène dóor na Tapha Tine mu kawo laa ilaha illallah Tapha Tine dem na rajo laa ilaha illallah Eumeu Sène da koo dóor mu kaw tëbu laa ilaha illallah laa ilaha illallah nanu xool deuxième manche dóor na ko Eumeu Sène dóor na ko arante nañ arante nañ Eumeu Sène ngi xeex dóor na ko Eumeu Sène dóor na ko Eumeu Sène jël saak bi Eumeu Sène jël Eumeu Sène dëgg na Eumeu Sène rëpp na Eumeu Sène rëpp na Eumeu Sène rëpp na Tapha Tine daan na ko Tafatin daan na ko Tafatin daan ma seen. Tafatin daan na ma seen. da ko busulu. ma seen. ci jeexitalu combat bi moom Tafatin am ndam ci kaw Eumeu Sène yëkkati kaddu ci micro Malick Thiandoum moom nag lenn la daal di xamle ni xeex bi moom sóoroon nu ko bu baax a baax ndax kii di Eumeu Sène yombut a bëreel ñu teewlu ko moom Tafatin ci micro Malick Thiandoum. ndam li gënul Sénégal amoo suma grand frère la waroon naa ko mun a daan xam tey yàlla def na daan naa ko sant yàlla ndam si kawam xam na défaite xam na victoire donc ñu ngi koy ñaanal bu baax quoi dëgg yàlla waaw jël nga coup yu metti mais terewul nga résister ba daan Eumeu Sène waaw loolu mooy sport tey noonu laa doon def gars yi noonu la ma waa ji def ci ci ci ci ci première kii bi mais sant yàlla quoi noonu la sóoroon nga nii sóoroon nga yéen ñaar di ngeen jógi jógi bu metti bi ah mais bien sûr sa waay gaynde la fighting la xaw xeex lay def xam sooroon naa ko gannaaw loolu ñu ñëw itamit ci analyse combat bi ak chute bi nga xamee ni kii di Bécaye Mbaye daal di na ci yëkkati kàddu itamit ci micro Malal Junior Diagne moom nag jàpp na ni doole ak ndaw moom moo feeñ ci combat bi donte Eumeu seen bett na leen ñu teewlu ko moom Bécaye mbay ci micro Malal Junior Diagne. ma bëri na. c'est un doué. vraiment il a bien lutté. mais doole man dëgg. doole la. Fatim mujj na. moo gën a féete xale. mooy il a quarante et quelque quarante quatre bëree na li mu mën a bëree wane na boppam vraiment ci combat bi xeex na kenn foogul woon dem na ba dominer tafaatin ci xeex bi ba yóbbu ko ci médecin mais nag lamb lamb doole doole dugg na mu boof ci kawam aner ko jël bu leer nañu nag vraiment dañuy féliciter Tafa mais di encourager bu baax a baax a baax Eumeu Sène grand lutteur gannaaw loolu ñu wax ci football ak championnat local bi ñu doon wëyal ñetteelu bëccëg bi tàmbalee ko ci Ligue 1 Teungueth FC am ndam lu am solo ci kaw ki nga xam ne moom moo di Linguère benn bal ci dara la koy daal di daan loolu di ñaareelu victoire Tëngéej ci li nga xam ne ni moom moo di championnat bi ñu dellu si ci jogante boobu ànd ceeg Sore Thiam. mu di euh, ñaareelu ndam ci biir terrain wam buur waa Tëngéej football club ñoom euh, Rufisquois yi nag dañoo daanu Samba Linguère yi Mokhtar Keita nag mu moo daal di dugal benn but képp di amoon ci jogante gi mu di match boo xamante ne ku ci nekk dafa am mi bu ñu sukkandikoo ca kay tàggat waa Linguère bu Saint-Louis Abdou Majib Diagne. si bit bon ñun ñu taxaw bu baax si tàmbali bi ah. defar taxawaay yi euh, gêné leen bàyyi leen ak bal bi euh, manque de placement bu def centre bi ñëw mënoon nañ ko récupérer mais ñu suñu joueur door ko ndam lii waaye nag xamle na ni itam nii am na ci lu bëri lu ñu war indi ay coppite Cheikh Gueye Linguère équipe bu costaud buy fubal un gelon ñun bi nu moomee avant fubal nañ bal bi su ba déséquilibré leen ba gelon ba mosu nañu trop mais sama góol ak sama défense ak équipe yëpp amoon nañ benn euh, dal ba nga xamante ni asso yi li nga indi yëpp enrayé nañ ko ba am lii nga xam mooy 3 points certes gagné ñaari match am benn nul mën nañ wax ni Tëngéej am na benn début saison bu xaw mais sur le plan comptable yam si wàññi ay poñ mais sur le plan de jeu gis nañ ni des na trop sur le plan technique te loolu war nañ si jublu pour mu gën si bii di ñëw nag Tëngéej football club dina daal fekki ji Géejawaay football club waaye nag laata boobu Rufisque waay ñoom ñi ngi ci ñaareelu placeu classement bi. ci yeneen jogante yi ñu jàpp rek tembo bi ci diggante Sonacos ak US Gorée ku ci nekk dugal benn but Stade de Mbour naka noonu tembo ak US Wakam 0-0 di def ci boobee jamono Dakar Sacré-Cœur moom fekkee Casa Sport daan ko benn bal ci dara niki lundi gi kon ci la ñuy daal di wëyal li nga xam ne moo di ñetteelu bëccëg boobu ci wàllum Ligue 1 ca la nara doon Génération jamono Fatick bu 16h30 jotee ci Ligue 2 itam ñu doon wëyal lu ni mel AS Douane Témbo ak Amitié ku ci nekk dugal benn but Walidaan ci borom daan Oslo benn bal ci euh, dara yooye ñaari jogante la ñu wëyaloon ci wàllum Ligue 2 waaye daañu ko tëj ni ki lënd gi ci diggante RS Yoff ak NGB ci stade Alassane Djigo bu 16h. Euh, rek ngir yokk xam-xam yeeg euh, taxawaay ci diwaanu Saloum ñeel communes yi di kawoon ak Kaolack moom wax na fa possibilité daal di siiwali rapport année 2021 en 2022 Fatou Mbow forum civil di sàkku ñu daal di publier li di plan de rationalisation gannaaw génnum njiitum réew bi Macky Sall jëmale ko ci wàllum wàññi yooyu les dépenses fiscales Birahim Seck di coordonnateur bu forum civil. il faut que le gouvernement publie un plan de rationalisation ou bien un plan sur les baisses des dépenses fiscales pour que citoyens mën a xam yan mesures fiscales nañu wàññi yan nañ bàyyi ak yan nañ bàyyiwul foofu la forum civil di xaare le gouvernement. publier résultat ñeel wàllum rapport at yu ñu weesu nat nekk na a buñ sukkandekoo ci kàdduy Birahim Seck di xamle ne ñu ngi xaarandi ba tey boobu la transparence annonce bi ñu def au niveau du conseil ministre bu mu tere gouvernement bi fàtte ne yoral na askan wi rapport 2021 rapport 2022 ci évaluation dépense fiscale loolu ba léegi gouvernement publié ko donc annonce bi bu mu tax mu nëbb léeg ngir gën a mën a gérer lii di fiscalité local yi rawatina nag ci commune yi si mel ni bu Kaolack ak Kawoon tax na ba ñu gën a dooleel compétence wu ñu bokk ci wàll gi. mais nag ñàkk xam rek la. moo waral nag te atelier bi suñu gën a leeral. gën ñoo jàngal affaire bi su ko defee waa commission yi dinañ xam naka la ñu war a population yi ndax Kaolack nag ñoo ko moom nag. mooy d'abord maîtriser li nga xam ne. mooy taxes yi impôts yeeg lépp loo xam ne dafay yëngu ci wàllu fiscalité. Euh, ñu mën suñu demee mun koo jëfee ngir suñu économie mun a yokk. niki noonu forum civil nag lëkkaloog ak ay partenaires am fas yéene euh, dooleel commission fiscalité locale yi nekk ci. communes yi nekk fii ci Sénégal lu mu ci jublu mooy gën a yokku xarañte yooyu le mécanismes de collecte ñeel wàllum ressource fiscale yi Fatou Mbow Kaolack rajo Futur Média. jërëjëf soxna faatu Mbow. Euh, liaison maritime Dakar Ziguinchor présidente au conseil dialogue social. Euh, la mu gis mooy ubbiteeg waxtaanu yaatu ngir xool nees mën a def ba yoon woowee ubbikuwaat ndax mu ngi bëgg a yàgg nag taxawal gi ñeel bato yi ci wàllu tukki mi ci anam yu dëppool ak yoon it euh, di lu mu tiisoo ñaawlu foofu it faaw ñu daal di ko pencoo euh, mooy gis-gis soxna Innocence Tab Ndiaye nekkoon ci Ziguinchor doon fa yóbbu taxawu ci daara joo xamante ni dañ ko yàqoon yaxeet ci jamono fitna yëf woon di émati juin dernier Lamine Ba ci Ziguinchor léegi mot juróom benn weer bi ñu jëlee dogal dàqal li nga xam ne nag moo di bateau yi daw diggante Dakar ak Ziguinchor tey nag comme comme région bi amee ci coono loolu ba tax na présidente au conseil bu dialogue social di Innocence Ntap Ndiaye jàpp ne jot na ñu tëj ab waxtaan ci mbir mi. dañuy yóbbante askan bi sonn na port bi dafa am vie bu nga xam ne moo fi nekk loolu amatul bu toogee diir dañuy toog waxtaan ak kilifa yi ñi nga xam ne ñoo xam situation dëkk bi ñu leen naka la ñuy def ba rétablir lu. ci lu jëm ci wàllu mbëkk mi nga xam ne tar na jamono ji Innocence Matam Ndiaye ne war nañu bàyyi di joxoñ baaram tuuma nguur gi kott ci mbir mi. wax dëgg gëstukat yaa ngi fi. mais bu problème tolloo fii. dañuy jéem a yaatal waxtaan bi. ci da nga gis benn kër juróom-ñetti nit ñu jóge fa jël gaal. te xaalis bi ñuy demee seen waajur yi ñoo leen koy jox. donc loolu. dafa dafa nekk problématique boo xam ne il faut nit ñi toog wax ak ñoom. ci lu jëm ci wàllu crise bi nga xam ne ñoo ngi koy jamono ji ci université yi moom nee nag kenn waralu ko lu université yi seen i bopp ndaxte jàpp na ne dañoo bañ tijji li nga xam ne que moo di comité de dialogue social ci biir université yi. au niveau des universités toujours dañuy mettre en avant le principe de l'autonomie. autonomie par rapport à quoi. par rapport à la ne ne le principe de l'autonomie de gestion des universités ne peut pas empêcher vraiment l'émergence ou la mise en place de comités de dialogue dans les universités. Innocence Ntap Ndiaye moo ngi kaddu ci am ndaje bi nga xam nag mu doon jagleel ndimbal mi nga xam ne moo ngi ko doon yeggee benn école bi nga xam ne dañ koy caxat caxate ci émergence juin yi ñi weesu Lamine Ba Ziguinchor, Radio Futur Média. jërëjëf Lamine. Euh, yoon wi nag di Dakar Ziguinchor ci jaare ci géej géej bato bi ñu bari bëgg mu ubbiku am na pétition buñ ci taxawaloon tukkee ci euh, xalaatu opérateur économique bi di Xavier Diatta waaye boobee pétition juróomi junniy doomu aadama signé nañu ko ngir rek ubbi gi euh, ñeel woowee yoon ak bato yi ndax boobaak léegi daal ak cooxee gi mu leen jural moom dàqul sax xalaatu moom Xavier Diatta daal di déposé pétition boobee altine tey jile ci conseil économique social environnemental ak ca ministère bi ñu denk napp meeg économie maritime cooxe gi ci wàllu koom ñeel taxaw bato gi boobaak léegi soxna Ami Ngom. ñu dakkal ko boobaak léegi def juróomi weer lu ëpp junni doomu Sénégal ñoo daal di booloo signé ab pétition ngir nag bato boobee nga xamante ne moo daan jógee Ziguinchor ñëw Ndakaaru mën a dooraat dem bekk dikk bi moom Javier Diatta nekk ab opérateur économique moo organisé boobu la pétition. dépassé nañu sax suñu objectif parce que li ñu am am nañu presque junni ak ñaar wala ñetti téeméer nit ñu signé pétition bi. bi ñu dénk wàllum napp gi ak lépp luy koom-koom jóge ci géej gi ak fi nga xamante ne moo di conseil économique social et environnemental. tey si suba lañ doon bind les les lettres amee dañ koy jëbale le ministre économie maritime ak beneen bi président du conseil euh, économique social environnemental pour ñoom ñu saytu mbir ministre bi xam nga moom moo yore wàllum kii wàllum géej wàllum navire wàllum trafic sax moom moo ko yore. ndax mm. moom lañ njëkkee interpellé. foofu nag ñu saytu. dakkal googee nga xamante ni dakkal nañ ko bateau yi depuis weeru juin bi ñu génn am na ay njeexital yu bëri jëm ci wàllum koom-koom gi. donc ah, parce que vraiment d'abord même ñoo xamante ni ñu doon liggéey ak bateau bi. Mhm. cest à dem di ñuy indi seen marché ñu jaayee ko fi Dakar Dakar ñooñu dematuñu boo jëlee marché bi nekk côté côté Pikine marché boobu nañ ko sàmm pourquoi parce que importance bi mu amoon c'est-à-dire euh, bateau bi ni mu amoon li mu doon indi Casamance bi sax nga doon jaay dañuy fexe di tourner waaye seen marchandise feneen nañ koy jël feneen nañ koy jëlee transport bi euh, dafa cher. Xavier Diatta jàpp ni su fekkente ni compagnie bi di ko Cosama mënatul assurer bi les trajets gi jël yeneen i compagnie ngir nag dem beeg dikk bi mën a ñong. jërëjëf soxna Ami. soxna yu kaw gi ca département bu Mbàkke seen gis-gis bi nu am ci tukki mi ci anam yi dëppoowul ak yoon mooy bu nu bëggee mu dakk faaw ñu gën a dooleel mbay mi fixé maanaam tey gune yi ci gox-goxaan yi loolee mooy seen xalaat taxul nag ñu ànd ci tukki moomee ci anam yu ak yoon ak i lorangeem Pape Mbaye Diaw kanamu ndaw commune yu Médina présidente femme monde rural bu département bu Mbàkke di xam le njàqare yi nga xamante ni am na ko jëmale ci immigration clandestine bi Nogoy Diouf moom jàpp na ne autorité yi danoo war a gën a investir ci wàllu mbay mi su ko defee ndaw ñi toog liggéey ci dëkk bi doom yi ñu ngi dugg ci gaal yi di dem xale yi li tee toog ci àll bi amul lu ñu liggéey xëy ndaw yi ñëw na ci monde rural mais doyul nga son maraîchage la su fekkoonte ne dañ fee gas ay forage ndox mi walangaan xale yi di liggéey ci tool yi duñu dem maraîchers yi ak béykat yi ñu ci bëri dañuy am ay jafe-jafe ngir mën a yóbbu seen produit yi ci marché yi li ko waral mooy yoon yu bon loolu ba moo waral présidente jigéenu monde rural bi nekk ci département bu Mbacké di sàkku ngir ñu defal yoon yooyu balaa ndaw ñi di bàyyi di dem ci gaal yi bi ngeen di ñëw xiis ngeen fi ñun fii son maraîchage a ngi fii ndokk mais bu ñu bàyyee ba pare pour ñu yóbbu ko Touba xam jafe-jafe yooyu nag ki nga xam ne moo di mataat Diop nekk député di xam le ne dina ko wax te pencum ndaw réew ma ngir ñu man koo saafara ministre des transports wax naa ko nee naa ko Madina ak Taliba nañ ko tali incha allah plénière da dégg ma wax Taïf Taïf Saaj porté naa combat bi diggante Kayel ak Talibi mat na 10 wax naa ko c'est un combat qu'on va pour ñu def finaalu coupe maire bu Madina doonoon occasion ci autorité yi ngir ñu gën a sensibiliser ndaw yi jëm ci immigration clandestine bi nga xamante nii lëmbee na réew mi autorité yi ñoom nee nañ dinañ jàppale ndaw ñi bu baax a baax ngir ñu mën a am liggéey toog ci dëkk bi RFM Touba Pape Mbaye Diaw jërëjëf mbay Mbaye ñu waxtaane mburu mi ak sekkee nag njawe nii ñoom xooluñu taamuwun fan koy jëndee ñoom nañ ca jot rek euh, rawatina waxtu wi waaye ministère bi ñu dénk jënd ak njaay moom dafa gis ne faw ak yoonal mburu du ku nekk ko war a jaay ci anam yu ne am na borom boutique yu ci ànd am na nag ñu ci àndul reportage Fatimata Diallo maaleykum jàmm Mohamed Diallo boutique bi atam yi di tollook fanweeri at respecté woon na matuwaay yi ministre commerce bi digle woon waaye jàpp na ni jaru ko woon ndaxte saa yu agent yi ñëwee dañ koy teg daan. ñun de d'accord tamit ñëpp ñëpp ñu dem boulangerie jënd mun nañ dem comme ça ni bi lu ma defee pain bi. à bi ñu def ko à part. bagage def ko à am koy jaay foofu comme ça. si biir boutique bi sax mun nañ ko séparer. dañuy jëw jësëf ne. li la fayloo amaan. wala nga fële ku ñëw jaay mburu foofu kon lu ñu wax la loolu ni la sa pain la amoon cent mille francs ca Gueule Tapée si beneen boutique Mactar Diallo nee na ànd na ak matukaay yi ministre bi jël waaye ñàkkum jumtukaay moo leen sonal ñu wax ni liggéey bi noonu mun na demee noonu mais tamit jàppale ñu xoolal ñu si cantine si biti moo ñu gën a arrangé quoi balaa ngay nit ki moom fekk nga defaral ko mais bu amul surtout que ñun pour ñu bañ a jaay ne mboobu nii si bën a bëri ñu am cantine gars yi jàppale ñu am cantine fii ñu teg comme si ñu mun a indi foofu mburu yi nii. si kanam tuuti.